wala beneen euh, ñetteelu poñ bi mooy ñu ko déjcee waxee am na plainte boo xam ne euh, Samba Boy boobu ñu tuddee Jibril Ngom nga xam ne li mu def yoon da cee ay daan ba saax bi ñu jokkee ak avocat bi nee na suba la war a jot arrêt cour d'appel bi pour mën koo def citation directe pour ko ci fan yu gaaw ñu woo ko fële ci tribunal Matam àtte ko loolu mooy li ñu seet moom waaye ki nga xam ne nag mooy xalifa moo ko yónni lool ba pare woo ko ci pare bi ci anam bi ñëpp gis ba ñëpp gis loo xam ne ñëpp njort nañ ni koppara ci ne loolu lu garaaw la ci réew mi kooku dafa xotti charte réew mi dafa xotti ormow cër bi ñu ko jox ci réew mi muy président de la ba pare dafa dafa dafa neenal bi nga xam ne mooy suñu institution li nga xam ne mooy président président Sall moo tax ñu ne ñun Yewwi Askan Wi mënuñu koo bàyyi noonu la ñuy def nag mooy dinañu lancer ëllëg dinañu lancer pétition ñu ñaan Sénégalais yëpp nañu signé pétition boobu pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir assemblée nationale d'une demande de mise en accusation parce que xam ngeen ni président de la république dañ koo jox arme boo xam ne nee nañ ko yow bokkoo kenn parce que lañ la sas ni mu toll moo tax bokkoo kenn ba tax doo bokk ak nit ñi fooy jaar wala sooy bokk ak nit ñi fooy jaar dañuy bi ñëpp yow ba jàll doo bokk ak nit ñi ñoo tukkee ba dañ lay utal booy dugg yow dong leneen ak leneen ñu jox ko ko sa njaboot sax dañ leen di jox sécurité yow xamoo lu ceeb di jaar xamoo lu diwlin di jaar xam lu courant di jaar lépp dañ la koy fayal waaye nag dafa am lu mu àndal mooy na nga ormal place bi loolu ci loolu nag lañ ko rek boo defoon ak di umbe sax mënuñu la atte ci tribunaux yi comme ni ñuy attee Malick Gakou wala Ousmane Sonko wala keneen dafa am yoon boo xam ne yoon bu spécial la bu ñu lay atte ñu li ñuy tuddee de justice ñaar bi mooy mënuñu la atte lu dul dangaa def haute trahison haute trahison dama ko mooy dangaa wor wor bu réeréeré haute trahison nag yoon tekkiwul définir ko waxul lan la lu dem mun na cee mais soo demee Tchad dañ la naan bu président violé serment mooy bi ñuy bi ñu koy fal dafa dafa taxaw waat ne man waat naa ni charte réew mi muy constitution muy loi yi dinaa ko sàmm sàmmanteeg moom donc su dee sàmmante wala charte boo demee bu mel ni Tchad dañ ne loolu haute te loolu moo fi am kon ñu ne. dinañ ñaan sénégalais ñu signé charte boobu gannaaw buñ ko signé nag pétition bi di moins buñ ko signé ba dajale ko dinañ ko def en ligne waaye dinañu am suñu ndaw yuy wër yor ko dem fépp ci gare routière yi si marché yi fu ne ñu signé ko buñ ko signé ba noppi liñ ci biir assemblée nationale ne leen Macky Sall dafa war dafa def haute dañu bëgg ngeen def di procédure de mise en